gëm sëriñ Touba ma doon ab sëriñam Cheikh Abdoulaye l'islam da koo jooy ba far watiilu neas bu naa mar watiilu ku sopp Cheikh Abdoulaye koy fàtti tabi aljannatulaay di dal fii liggéey bi toll ku ne xam na ni ren bi ñëwee yàgg ci xam nañ ni kon yëf yi wax dëgg yàlla mënuñ ci woon a ñàkk ndax tolluwaayu jant bi moo agi foofu ndax ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci dëkk bi ñoo daan ñëw di ko togg si yàlla dogal a baax doomu donga yi kafe gii ngeen gis ñu koy séddale ci soo ba léegi wax digal la ñoom tamit ñoo def seen i andi fi seen euh, mbooloo andi ko liggéey bi ba kon ñoom tamit suñu baara ñu ngi seereel ñooñu daayira mat la bu foo sëñ bu sëriñ si bi moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ si Gurel na ca boppam ndax Cheikh Abdou Lahad de fi mu newoon ci sëñ Tuubaa da ko waxoon mu leer nañ ba nga xam ni mbooleem daan na wax naan mbooleem boo leen gis kuy def ak ba kuy bàyyi diggante boobu boo leen boo leen bi séen xamal ne du man nga xam ne dañoo wax ni comme lii nga xam ne ci leen bëgg a sos ñun jël suñu lépp jox ko Cheikh Abdou Lahad te ñi ko fi nekkal ñu leen di déglu ci ndigal lu ñu digal di def lu ñu tere bu ñu ci seen sax ndax noonu la suñu war yi doon doxee moom Cheikh Abdou Lahad wax ni moom de sëñ Tuubaa bi mu ko jëlee da koo jox ko loo def da koo jox gi nga xam ne moom du koy faatu waaye ne da koo jox waaye yëngu yi mu daan yëngoo da koo jox sëñ da koy lu ko waral muy noonu la sëñ Tuubaa defoon yonent billahi lasi la ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa harakaati wa sakanaati maa sayyidina Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu nag bu ko Cheikh Abdoulaye defee sëñ Saliou ni ñu mënumaa roy doomu aadama ne loolu ko xam seytaane la ñu ne ñun suñu daal mooy ndax waxoon nañ ne ak bu mu mën di doon bu waxee lu mu noonu fanaan yàlla si bu liggéey mën nañu ko wecce loolu nag ban nekkee foofu ci Sëñ Abdu Lahat moom nag xam ne ñun kenn mënatu ñu nax ci Sëñ Abdu Lahat doon de amuñu tiyaaba ba ko doyal sax waaye waxi démb moom bi tayam ci lañ jàppe ni bu ñu ko waxee ñu xam ne lii wax yu wér la ndax moom mooy suñu référence sëñ si mii ñu am nañ ko war a dimbalee moom njabootu Cheikh Abdou Lahad yëpp fi ne ci sëñ Tuubaa fi ne ci sëñ Tuubaa magum tali bi ko wax da ko Moussa wax Cheikh Mahamadou Moustapha ne ko man de yërëm naa la lool ci yàgg bu diis bi ak at yi néew yi mu ne ko loo may dimbalee mu xaw a nakk-nakkal mu ne ko téel ma sa bopp ñun njaboot bu ndaw gi yëpp dañoo bëgg a téyel su bopp di waxtaan di déggoo ci liñ bokk ba téyel suñu bopp seen sibi ba nga xam ne lu ñu dégg lu yëngu bari bari bu ñu dégg njabootu Cheikh Abdou Lahad loolu dara mënuñu koo may du lu boole suñu bopp nas ko muy góor muy jigéen muy mag muy ñuy tàmbalee ci bi di yem ci sëñ bi di rootee sëñ bi waaye di sotti sëñ lu dul moom nag ñoo xam ne nekku fi ndax yii yëpp ñuy dégg bi dee ginnaaw sëriñ bi lañ ko dégg te sëriñ bi yoon yu mu sos ak yëpp amee cislaay te Seexul Xadim léegi ñëpp xam na ne dëgg wuñ ko woon kon fi mu newoon ci fi mu ci diggante mag ak yonent bi ak yàlla ak yonent bi wala ngërëm yooyu fekk ko ca loolu lan ngay topp foofu la Cheikh Abdou Lahad newoon ñun ñi ci woo njaboot ñi fi teew ñëpp nag biir liggéeyu ndax fii lu yëggu dara man ñu ma doo nekk tu tànk wala ñu ñett ñu bari ñu ci njaboot fii la leen Cheikh Abdou Lahad dugal defal leen ay mu ngi jëlaat boppam xotti bu ma xotti bu jël suñu woon la kooku nag comme defal nañu teraanga yooyu lu yëpp dara siiwal bu néew mu woon ñu ginnaaw ñun faaw ñu boole suñu bopp muy benn ñu jéem koo fay teraanga yooyu mënuñu ko ab bor nag boobu mën da fay da ngay doo am lu wàcc ñun am ñu lu moom waaye ci moom lañu tàmbalee dem ci moom luñ ci waaye boole lu moom ak koo mën doon ñu sax asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bii fi toog mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sama borom bàyyi ko fi te wéral ay cëram ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi fi nekk yëpp kàddu yi nag kàddu yi cant la rek ak kàddu yi ngërëm yoo xam ne dafa bàyyeekoo ci ñi ñu fi yebal muy Touba Mouride Daara ji buñ nee Touba Mouride Daara ji nag xel yëpp dañuy daj Serigne Abdoulaye ndax. woowu tur moom su borom dogal na ci moom la sottee ko muy Touba Mouride daara bi ndax bu ñu nee Touba Mouride rek xel yëpp dañuy dem Sibla muy yàgg dong yi seen jëm bopp it ñi wàcc ak ñi wàccut di tàmbalee ci njabootu Serigne Modou Moustapha ba ci njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada njabootu Serigne Massamba ñu ne ñoom kat dafa am lu nu boole woon loo xam ne sëriñ bi ginnaaw bu nu suñuy waajur jëlee jox nu sëriñ si dañ ñu koo nàmpataloon ci ñun nu bokk aw nekkin bokk lu ñuy bañ muy ànd liggéey sëriñ Tuuba ñu dem ba yàgg nag ñu ne nañ sos ci daayira boo xam ni daayira bi ko tax a jóg mooy daayira ndimbal. te xool lislaam ba far ko def muy wéttalam te gëm sëriñ Tuuba ma doon ab sëriñam Seex Abdu Laat lislaam da koo jooy ba far watiilu ne askanaa laahu wa ni'mal wakiilu ku sopp Seex Abdu Laat koy fàtti tabi aljannatu laay daa soppoon lislaam ba far ko def muy wéttalam te doon sëriñ Tuuba ma doon ak sëriñam Seex a Lahat lislaam da ko jooy ba far wëtiilu ne asbuna laahu wa ni'mal wakiilu lislaam bu doon jëmm man moo xam ne dem naa bu doon ne tooy lu ma awaat ni na Seex Abdu Lahat moo ñu daan woo yoonu yàlla ak darajaay sëriñ bu xam ba yàlla Seex Abdu Lahat Cheikh Bamba ko waxoon si Mbàkke fu Mbàkke dem lislaam la doon xëy àndal yaa waasiyan ya Cheikh Bamba waxoon ca way waar moo yàgg li mbirum Cheikh Abdoulaat loolu doy na xar waar Cheikh Abdoulaat ku laa jaamu yàlla ne boo Mbàkke moom Sëriñ Sidi sama kanamu kilifa Sëriñ Saliou Mbàkke moom Sëriñ Cheikh Sey waaye rek ndigal bu jibee jëfe rek dañ ci xam dafay mel ni di ëppoon ci solo jotaay bi Serigne Bassirou Touré di suñu doon bàjjan mel ni ne bi mu ñu fi jiitoo da ëppoon wax na ko te dafay mel ni ñun ñëpp yu bàlli nan waaye nag ndigalul Serigne bi jëfee nañ ci man dinaa ci joxe tuuti rek ci seen daal mën ko junj Cheikh Mouhamadou Lamine Touré mii ci biir suñu yëpp laaj day koo xam ne man ci samay wax mbirum jëritul waxtaane ndax lu ne fang bàyyi la nañ dama naan ku bañ a gis jëfi Cheikh Abdou Lahad bay ba ma bañ yori bët ku bañ a dégg jëfi Cheikh Abdou Lahad bay ba ma bañ bañ a bari dox kon dafay mel ni ñett yooyu lu jafe la ci nit mu wala mooy dëf gumba lu yàlla mën naa dégg natt bu nekk waaye koo xam dafa tëx gumba lu jafe na lool te ku jëm ku boolewul yooyu yëpp rek xam nga làmb jëm waaye nag jëm ji dama naan du ay tabax yu ñuy wone wala ay ñu bokk ci loolu nag la ci gën a gaaw mooy man mii di wax bokk naa ci Serigne Saliou bii di wax bokk na ci defe naa ne sama mbokk yi fi bàyyi ko léegi bokk na ci Cheikh Blaat li mu def ci bokk yoonu murid yaatu na lool waaye ku tey def moo nga yor la ci ëpp solo itam ci lu def ci bokk tey man maa ngi nii doog di wax waaye xawma li ma ñi ma bokkal Serigne Cheikh naan Serigne Abdoulaye wala Serigne Abdoulaye ak Soylu wala ñu ma bokkal sëñ Moussa Abdoulaye xuma lan laa bokk ak ñoom ba ma ko dee wax fi laa tam ndax Serigne Say mi nga xamante ni mooy sama wayju suñ ñaari ndey si ne bàyyi bokk ndey bàyyi mu nekkaat sama wayju loolu Cheikh Abdoulaye da ko def Serigne Abdoulaye doom Serigne Soy sama waaye sama mag la ndax Serigne Mourou Matar Sylla bi meññi wayjuram soxna Fatou Sylla Serigne Mourou Matar Sylla am soxna Adam sama wayjur bu jigéen ñoo bokk ndey ak bàyyi comme lu nekkaat sama waajur waaye nekk sama mag Serigne Sidi mi nga xam mooy kilifa kër yooyu yëpp nag dafay nekk sama nijaay nekk sama baay nekk sama nijaay ci gan anam mooy maam Asta Sylla mi meññ sama waajur jigéen ñoo bokk sëñ sëñ sëñ mañam waaye ba tey dafay nekkaat sama sama maam ci sëñ Abdu Lahad ndax sëñ mañaaw moo jur waajuram soxna Jeng Sylla meññ sëñ Abdu Lahad te sëñ may naaw sama jëm si la ñoo bokk ndey bay kon sëñ Abdou Lahad mag la ci moom kon nga dugg doonaat way juróom kon mel na ne sëñ Abdou Lahad jëf ji mu jëf ci bokk kenn doonul kat ñu mën a waxtaan si wax dëgg yàlla defe naa nag jotaay bu mel nii suñ ñu xam ne suñu way jur waaye nag dañ koy ndamoo ndamoo gi mooy lan sëñ laa am na ay tuut tànk waaye li tax ñu koy ndamoo xaw ñu dugg foofu bu baax mooy sëñ laa bi mu gënee adduna sëñ Tuubaa dafa jox daf caa waxoon wax ju kéemaan wax ñu ne ñëpp ñu ba taxoon sëriñ Baaram sëriñ Tuubaa jug taxoon ne maa koy njëkk a tuddee doon te sëriñ Baara sëñ laa sëriñ Baara man na way jub sëñ laa bu wér sëriñ Baara tuddee Baara waaye jur Baara Lahat defe naa ne ñetti weer la ko Sëñ Abdou Lahad ma gi kon sëñ Baara bii day bor boo xamante ni Sëñ Abdou Lahad moo ko fayee moo ko fayee sëñ Baara ci askanu Mbàkke lépp fayee ko sëñ Baara kon su ñëwaatee tey ay kilifaam joxe ndigal ci bis bii muy dox di jaar ci Serigne Sidi ba ci Serigne Cheikh Lay ba ci Serigne Cheikhouna ba ci Serigne Moustapha kilifa yooyu yëpp day siwaat ci loxoom defe naa ne kon loolu du asar kon dañ koy ñaanal ci daraja Serigne Touba yaakaar ci kilifaam kilifa bi am ci moom bëgg gi ñu am ci moom ak wóolu gi yàlla bu ko yàlla am nañ baax ndax ci kanamam la ñu yaroo muy kër Serigne Souhaïbou ñu xam bu baax it ne làq na ngërëmal Serigne Souhaïbou doogu ñëw la ca des muy waa dëkk bi ci kàddu Serigne Mor Cheikh moom dañu baax yéen muñ ñu leen wax valeur yooyu mu waat bi ci yéenuwaat ñu joxoon Serigne Souhaïbou rek te mag ko fuuf Saalum boo koy naan Saalum moom tamit defe naa Cheikh Mor Lamine Bara ak Sëñ Abo ko xam bu baax Sëñ Moussa nee na léegi bi fay teg sa loxol ndeyjoor ca la muy jëg ak Serigne Soye bi bi mu ñëwee ba Serigne bi nekk moom ci néeg bi bëgg naa daf ko gunge taxaw ci rampe boobu mi nekk ci ginnaaw daat ne Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko nañ ko ubbil bu di ginnaaw bi mu gën a jege ci moom kon cër bi seen laa joxe woon. te bañ a ko bëgg sëriñ bi sëriñ bi di ko xool di ko xool ba mu ëpp ko gis ci saa yi muy bëgg ko waat toog daal de sëriñ laa doon sëriñ sooy doon sëriñ Moussa Abdou Khadir ne leen seen góor gi de tey jii bis ni ki tey lu ñu waroon a wax ci àdduna ak alaaxira wax nañ ko man lii ñu weesu dañ ci waroon a wax wax nañ ko lañ jëmaatee yëpp buñ jëlee ci war a wax nañ ko buñ gisee ci wàllu tool yi suñu borom def na ko man ñu daal di ne sëriñ bi daal di ne sëriñ sooy bi daal yëgale nag booba sëriñ bi daf may yëgal ne daa waroon ne ko noppalu mënoo am dëkk bu gën a rëy Touba Belel xoolal bi ñu mu ñëwee Touba Belel delluwaatu ci la fi sooy bu nee na bi mu gisee sëñ bi da ngay fexe ñëw ko ne sëriñ bi yaram ma daal sutaat sooy bu tontu ko ba léegi sëriñ bi waxu ko lii moo dal daf ko ni nañ jaar jël jaar jaar bi sëriñ bi bu jël ko ndax dana ko baax kon boo ko xamoon lii di a am Sëñ Abdou Lahad xamaloon na ko li war kon Sëñ Abdou Lahad day koo xam ne ay doomu aadama la la defa la defar ay doomu aadama yu xam ne ñu ngi bokk ci Sëriñ Tuubaa tey di defaree ñoom la Sëñ Abdou Lahad defar kon dañuy ñaan suñu borom yokk leeram sàmm ko sàmm njabootam ngir wër yàlla nag lu wér lu wér Sëñ Abdou Lahad am na mooy bàyyiwul ak njabootam ay milliards waaye bàyyi na leen ngor ak diine. dëgg la loolee tey jii. ñi te mu jóon ak gare yaakaar naa ne tey jii soxlaa duñ kenn dara loolu sëriñ bu baax pëstéef bi ñuy waxee ci taalibe mën nañ ko rek sëñ Blaat sëñ Cheikh Seydou Dinaw ci làmmiñam ne ko ko fa sëriñ Touba nee na képp ko fa dem wala nga waxaat ci waxaat ne maa ngi dégg sëñ Bass di wax léegi sëñ Mbacke Diakhaté nijaayam sëriñ Mbacke Diakhaté nijaayam sëriñ Mbacke Diakhaté dafay koo xamante ni ci ñoom ma naa ne ma dafa amoon yërmande ci sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Soy bu wér moo ak sëriñ Saaliw waaye sëriñ Soy boog sëriñ Abdou Lahad dañ caa raw ndax soxna Mariama Diakhaté mi seen waajur moom sëriñ Mbacke Diakhaté ñoo bokk ndey baay ba noppi ñoom ñaar it ñoo ci ñooy caati muur moo waral lii ñuy dégg léeg-léeg ñu di ko nii ñu ne suñu mbokk yi daanaka dañu di si bi ne ko gujuwaat kenn loolu mooy suñu sa bopp saa aussi sëñ bi daan wat dañu gis suñu mbokk yi jafe daan wat sëñ bi la ko ne nag maa ci wat te gujuwaat keneen suñu mbokk yi jafe nee na wat naa ci seen laaj a am solo waaye lépp ñu dañ mel ne départ ci si ñoom sëñ Serigne Mbacke Jaxate daal di waxaat si ñoom laaj ne ko si ñoom laaj waxaat seere ma tey mu ne seere si mooy lan bis di ki tey damaa jaayante waat ak Serigne Touba. ci ne man Abdou Lahad day ku am waajur bu mel ne Serigne Touba am maam ju mel ne Soxna Jaara ñoom damaa tuddee di kenn doom ku ñoom loolu moo sabab ci mujj gi Serigne Abdou Soxna Jaara yi ku judd Soxna Jaara ku judd Seexul Xadim loolu ci mujj gi looloo ko indi kon pas-pasum Sëñ Abdou Lahad ci Sëñ Tuubaa foo ko takk weesu na kon ñun li ñu war a def mooy si Sëñ Abdou Lahad ndax ñun ñu mujj judd ñëpp ndax ñeen fukki bu ñu xamee Sëñ Tuubaa Sëñ Abdou Lahad tax ñu doon wax ay jamono ci ginnaaw tey la ko nit ñi gën a soxla lépp lu doon wax rek bu ma daan wax nañu wateel diw da koy justifier am na lu ko daan justifier waxul lu jëm ci moom waxul lu jëm ci njabootam mosut a ñaanal kenn lenn lu jëm ci njabootam la muy wax mooy Abdou Diouf wala Senghor surtout Abdou Diouf bu njëkk ku bëgg bëgg a faju Touba da ngay dem ba Njaaréem da ngay dem waaye doo mën a faj waa bi góom da am rek akum ngeer ak ak ci wala doo faj kon lii kii na ko bi moom fi def na ko fi ndox ku ko masaana ko gisee da ngay tiit waxuma laa nag bëgg na buy na ko fi loolu nag dafa faju moom fajuwu ca naan te ndox nit ñaa tey kon lu mu def rek suuf si biir la ko moom seen daal kon dañuy ñaan ci dara jee Sëriñ Tuubaa yàlla fayal ñu bii muy defal daanee kamil ba njëkk loolu dafa taxaw ne Sëriñ Moustapha ak Sëriñ Fall lu ñu war a def rek waaye man am naa liggéey ndax liggéey bi Sëriñ Tuubaa sumb Sëriñ Moustapha sumb ko Sëriñ Fall sumb ko maa ko war a yeggale ba tam laal te yeggale na ko ni mu ko yeggalee mooy tey bu ñëw ci dëkk bii da ngay njëkk wax mooy ana kër borom dëkk bi ñu ne la ñu ngi nii nga laaj ko fi nekkal borom dëkk bi ñu wax la ko boo réeree mu gindi la Touba li muy wér kër am foofu kër gi sëñ bi moomoon mooy fii ci barab bi nekk tey te sëñ Fallou ko moom ci wàllam mu njëkk a def mooy ne gàcce la ci man Abdou Lahad ma doon sëriñ Touba wóotu ko fi doon jëwriñam xëy xëy nit xëy ma ko woon ci la laajee sëñ Moussa Bassirou kër moom def ko addee sëñ Touba sëñ Moussa ne ko ñu mooy yàlla ñu ko leeral bu baax ndax bu déggaloon sëñ Abdou Lahad sëñ ne ko li ma ci moom dinaa la ko jox addiya li ma ci moom it dinaa jukki seen borom ci mirage bi jox la ko addiya seen borom kër ga itam ku yaakaar Serigne Touba mbaa nga doon dara ci Serigne Touba gis nga ca sa ah, kër Serigne waaye na déglu alxuraan muy daare kaamil daare kaamil mu daal di jël fa kër fa Serigne moom fii mu daare kaamil moom bay doon kër Serigne Soy ñeenti loo benn loo bi sëñ Abdoulaye sëñ Sall sëñ Mourtala sëñ Boukhadé lii waral ñu séparé ko mooy mbedd mu sew moom ñoom Aïdou Rahmati moo séparé sëñ Saliou ak sëñ ak sëñ Mourtala la hmm. bari. Hmm. te ci hmm. yi. nga xam ne ñoo koy taxaw. parce bi ñu am. ak yaakaar bi. ak ndimbal yooyu sama borom daj ko ni di ko def. yàlla ñu gën ko am. la ko amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla seen taxawaay yàlla. amiin yàlla yàlla guddal fan. amiin amiin mm, mm, mm. ne ay taalibe lañ ni ñoom. te ñu taxawal ñu war a taxaw. kon saa ba mën nañ koo ñaan ci baaxu see xam baax. moo dimbali ñun ñëpp. amiin defal ñu dimbal ñu ànd ak yëngal. amiin amiin defal ñu sutura su ànd ak karaan. defal ñu defar lu weesu yàq xaw am nañ ci yaakaar ci moom ndax mën na ko. am na ko. kon yàlla ñu ko defal. jërëjëf defal ñu lu kawe ba. amiin amiin ñu bokk ci dara jëy sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Mhm. Mhm. sant bu baax sëñ gërëmal bu baax suñu mbaar. Mhm. di ko ñaanal bu baax suñu borom yokk leeram. Mhm. xanaa ni ko sunu sëriñ si waxee. Mhm. yi. suñu maam maanaam loo xam ne. tàmbali cant la waaye am na fu mu niñ ko waxee. gën nañ ñoo soññiwaat. gën nañ ñoo ñaaxaat. gën nañoo dëppaat yaakaar bi dëgg. gën nañoo dalaat suñu xel. ndax ab tool de soo ci dee bay. ba ki nga xam te li mooy borom tool bi mu jaajëfal la. ñëw nekk sa kanam nekk sa ginnaaw. Mm-hmm. defe naa bu fekkee am nga looy tiit. Mm-hmm. dafa naa ñàkk xam koy waral. Mm-hmm. tey mel na ni bu fekkee dañoo réeroon. ñu ngi bind ko bu baax a baax a baax. ndax lii ñuy def. dañ koo yàgg def. te saa yu ne ñu ci gis gis muy gën a jëm kanam. kiñ ñu koy defal saa yu ne mu ñu teg ci yoon wi di ñu ko wan. lii jotaay bii tamit wane na loola hmm. waxi soxna yi tamit maanaam firndeel na loola hmm. kon ñi nga xam te ne nii hmm. bu ñu koy tàmbali ñëw ci suñu kilifa yi ñëw di di leen laaj ndigal ñu ñu koy jox ñu di ko jëfee am na lu ñu xam ci lu wóor li ni ñun fi mu nekk nii maanaam dañoo maanaam dañuy ñaan yàlla gudd fan rek waaye wóor nañu liñ ci yéene ak liñ ciy xalaat moom li ak li nekk suñu xol yii bu soobee suñu borom buñ guddee fan ñoom liñ bëgg ñoom bu soobee suñu fas nañ fas nañ ñu ko yéene defal incha allah ndax mënuñu leen a fay Mm-hmm. ndax mënuñu leen a fay. Mm-hmm. sëñ Abdou Lahad lañ yaakaar mooy dund Serigne Touba. Mm-hmm. ñoom lañ àndoon di liggéeyal sëñ Touba. bàyyi leen fi kon ñu ngi yàlla mu yàlla ñoo ngi ñaan yàlla ah, mu gën ñu gunge ñu ba ca kanam ak kanam ak kanam ak kanam. incha allah bi nga xamante nii. dañ dañ leen koo ameel. ameel ko sëñ Abdou Lahad te mun ñu leen koo fay. dañuy ñaan yàlla lu ñu am sànni ca. lu ñu am sànni ca nag mooy ñuy fekk at mu ne. maanaam saa yu néewee rek ñu fexe ba seen xol sedd. donte maanaam lottu nañ saral seen xol moom mm-hmm. waaye nañuy nañuy jéem a ñoom ñoom rek yéene fas leen mm-hmm. yéene fa yéene saral seen seen xol mm-hmm. yéene jooju ñoom nag ñu ngi ñaan ñi ngeen ñaan li ngeen ñu ko ñaanal rek suñu borom gën ñu dëpp kattan gën ñoo dëpp wërsëg bañ man ko eggal liñ ko ñu ngi ñaan ci doole Sëñ Abdou Lahad li nga xamante ni moo jig ab murit ñoo ngi koy ñaan jetaay bii nii Sëñ Abdou Lahad yàlla ñu ko defal muy yàgg fi wér bari xaalis ndax yàgg fi mooy war a fekk lépp wér mooy tax saa bu ñu wootee bis bi nga mën a ñëw teewee ko maanaam wërsëg mooy tax bu ñu te laajee nga mën koo joxe kon yooyu yàlla nañ ko yàlla nañ ko suñu laa defal mm-hmm. te defal ñu ko ñun ñëpp defal ko ñu ngi sant soxna Oumy Sow mais mm-hmm. ndax maanaam ku ñu teg ci yoon mm-hmm. tey nag ku am fulal tam fay des tey mu nag wax maanaam wane nañ kon ñun tamit lépp lu ñu def da war nañ ko jëfe ki tax ñu def tamit def naa ko xamante loolu nga ko xam di sant nam sëñ Baara mi nga xam te ne tamit moo nekk suñu kanam fi mu nekk nii moo nekkoon suñu kanam gën naa nekkat suñu kanam mm-hmm. nga xam ne d'ailleurs kon fi mu nekk nii dañ naan sëñ mm-hmm. mm-hmm. kon mooy lépp kon tamit ñu ngi koy santaat bu baax gis nañ ni ku ne xam ne ni ren jii fu mu yeggoon yeggaan na fa yokku na ci wax yokku na ci jëf yokku na ci ab taxawaay kon ñu ngi koy ñaan te moom na fi yàgg loolu te wér lii soxna Mista wax tamit ñii di dox ci liggéey bi xam nañ ko baax ndax maanaam la fi bàyyi soxna sii nii ba soxna yii ñëw di fekkaat ko fii tamit mm-hmm. lépp liggéey si ñoom la kon dëkk bii kon man na ñu ngi ñaan suñu borom mm-hmm. lépp lu fi waay yéene di ko fi sàkk yàlla suñu borom defal ñu noonu ñu leen ko seetoon te ñun ñii ànd ànd ak ñun muy mën laa mintro ñi bàyyi mm-hmm. kenn ku ne am nga pas-pasu yegg la bi laa dëkkam bii fu mu ko yéene woon a yeggale rek am nga yéene yeggale ko kon yàlla na yàlla yeggale di te rafetlu mm. lii doon gis bu yàgg. Mm. boo xam ne dañu ko daan def ci kanam mm. nga nekk fekk amoo solo. seeni waajur dañu ko daan seq ak seeni mag. ñu demoon nag ba du wéet waaye am posté ak taxawaay bu rafet. ba dellu si. du ko def at yii yëpp. du ko def at yii yëpp nag. ñuy tudd waat ak ñoom. ñun ñi nga xam ne dañoo jàpp ay waajur da nga xam ne nit nangu nañ leen waajur bu rafet waaye nangu nañ leen nit door seen mën caal yi nga xam ne ñoom ñoo ma bokkul tey moom ñoo ma bokkul mooy lii ñuy def ba sant Cheikh Abdou ah war na ñëpp rek waaye defe naa moo ci war ñun bi sant Cheikh Abdou ñun daal ñu jiitu biir kër yaakaar naa ñu koy wér ndax defal mhm. na ko lépp. Mhm. loo ñu mën a dikkalaat ci jëmm jooju seetlu jooju. seetlu la. Mhm. ah seetlu sori ci koo xam ni. daanaka mënu ma am ci lii. sori xam ne. lan ngay fàttaliku ci moom loo xam ne doo ko fàtte moom. Hmm, dañ fàtte dara ci moom barke mm-hmm. mat ga mm-hmm. ak yaatal ga mm-hmm. ak yërmaande ga ak kenn sëriñ Tuubaa ak bëgguñu ta mën na fàtte ci moom leen xanaa lu koy sant rek suñu ngir di ñun xam sooy laan ni sax wattu ndax ñun buñ defaree ñëpp lu dee sant danoo wax loolu loolu carton hmm. ñu xeebu hmm. ci ay taali bi ay doomi taali hmm. yemal ñii ne Pastef bëgg nañ dëgg bu ñu yàlla baaxee ba nekk ci biir daaraam bii te kenn ku nekk ci ñun na ma ko daan naka def bi la fasee ma jur démb dafa xeeb sa jëmm xeeb sa Pastef xam ne gone la jigéen la période bi am gisin bi sax day jàpp ne boo ko mën a matal ba waxtu wu ne bu fi nit ñëw di liggéeyal si yàlla dañuy wut ñu ko boole du mm-hmm. ko tàmbalee càmm ñi naka nga doon jiital mm-hmm. lu mu tuutul tey góor ñu jàpp moo la ëpp taxawaay mm-hmm. ba boole yow dañ bëgg boole ko nga ne ku ñuy yóbbu nga àndaloon ba ngeen ñëw seen bi la dem nga daal bu dee càmm bu dee jiw bëri na ca dong bu ni ci daal. te ñun nag ñu bàyyi ji fii dañoo bëgg a dimbali nga xeeb sama doole. war nañu bàyyi nga lool. diir bu gàtt nga fiy am. war a delluwaat suñu kër. sa waajur ba nga xam ne moo mmh. xeeboon sa taxawaay. ba wut si càmm bi dina booleeg moom baa àll. bu ñu nee suba nga ñëw. moo njëkk génn ku am ab xarit te lépp. dinaa ne bu damay am dara. aj la ca kaw. génnum néegam. wàcc ndaram def lu fa yeewee fi lu ñu war a lotto raccordé ñoom itam dagal. ñu def ko pour sa a sa yaay yi mu ngi ràññee ko. te feebar la bi ngay ñëw. am na mu ko te teg la a jugee. moo waral di bàyyi ci loolu nag bu ñu ca taxawee. bu ñu tax mukk ñu jàpp ne suñu jàmbaar. dañuy xam ne dinañu sëriñ. wallaay loolu moo ko a ñu amul benn fay. xanaa di ko ñaanal. sëriñ Touba yokk ay leer. yokk ay amiin amiin te bàyyi na nga xam ne moom koy xool. ñu yàgg suñu kanam. ñu yàgg ñoo jiite. ñu yàgg ñu si yàlla. di sant xam ne bii. bëggoon naa ñëpp ñu amul lu gis bi ñun ko suñ diggante sëñ bi laaj war na loo mën a may fuñ dégg tàntu sëñ bi laaj koy tagge dafa sant bu doon ca pël ga mbaa nga naan la sax loolu ko ànd noonu awat naag bi suñu jiw mm, mm. ma di leen doollee ñaan na mm. muy daaree jigéen ñi di daaree góor ñi di gone yi si yaroo ak képp koo xam ne kii fii nga daan fekk sëñ bi laaj mu dina dimbali ca baaxam ba dina jàpp suñu déggatee bis ngir dim seex bi bu ñu jàpp lu bari te ànd ko gone ba liggéey bi yow ndax defum nag àddina leen bu ëpp te ku dikkut fii yaa ngi ci beneen baas baas bu ñu mën a dem nag am màggal bu nu mën a seet nag. fii rek kay suñu gis. wallaay wallaay wallaay fii rek suñu lépp nekk. ku mënta fay naa ba xorom itam. Mm-hmm. war na ko wane ko xam naa ne yaa fay di xorom. wallaay wallaay am na si si sëriñ la. yaa ngi sëriñ bi baax amiin yaa rabbal alamin amiin amiin amiin عسى بالنار أن يؤمن ويتعلق آمين آمين آمين آمين يا مسلم الأمر سبيلا وسبيلا وسبيلا آمين يا محمد إن سبت لك آمين آمين في ساعة السهرة عن آله آمين آمين آمين